Euh, euh, Bassirou Diomaye Faye quand tu le waaw waay non lui c'est bon chef de cabinet du président de la République. <laughs> non Farba da ngay arrête toi chef de mais Maïmouna toi dans un pays comme le Sénégal nga am nga am. dans six mois jiite ko Babacar Sy Mansour nga am taarixa Mouride. Hmm. jiite ko. ci ki nga xam ne ne ñëpp xam wax dëgg yàlla aayam ni la nekkee nitu yàlla. où hmm. est général des Mourides. Hmm. mais quand même. tu vas à Kaolack tu vas à Ndiassane tu vas nga xool culture sénégalaise ni mu mel. tu vois Bassirou Diomaye Faye un jour solo ak pok koppatam bi dem di je suis chef d'état wala dugg ci mais kam may mun a je hmm. suis sûr que tu n'es pas politique. munoo te je sais que dans ce pays ma wax la leen rek politiciens yi politiciens les politiques on est minoritaire nous ñi nga xam ne ils sont pas politiques ñoo gën a bari. saa yu ñu éliree nit xaaral ma saa yu ñu éliree nit sénégalais ñoo ko élire. sénégalais ñooy tànn kenn mënul jël dem rang dans les élections jël kàttam dinaa. bu dee xam nga xanaa leen ñu bañ koo génnee fekk élection. loolu arrangé wuñu man li may demandé Macky Sall amnistie ou sans amnistie ku mel ne Bassirou moom nañ ko génne. mu Sénégalais ñooy tànn de. dama la ne loolu laa wax. loolu man man loolu tax loolu tax ñu interpellé les Sénégalais xam nga nekkum prison xam nga nekkum prison day joxe code en politique nañu génnee Bassirou ñu xool ko rek kaw ba suuf ak mbaxana bi nga xool Sénégal nga xalaat ne boo rangee te bulletin bulletin bi fotam da ci bokk wóor na yàlla. des gens qui étaient engagés que nii ak nii Ousmane Sonko boo ma laajoon ma ne il est présidentiable. est président. non toi aussi Bassirou le connaît. ce sont les Sénégalais qui c'est-à-dire que Bassirou le connaît et moment bi ñuy dem di jël les les les les les fiches pour parrainage y avait beaucoup y avait des gens comme Abbas mais nit da ngay xam sa bopp Abbas est un bon politicien on est là-bas à l'ensemble à ensemble à l'Assemblée il défend ses causes. il assume ses responsabilités mais ak xol bu rafet pour wax la ne Bassirou quand même ma ko de parce qu'il ne m'a rien fait dara lu du lu bon mais Sénégal laa bëgg yéenee koo xam ne ne buy taxaw di wax ci Macky Sall day dem bu dee sama combat day dem bu dee sama combat c'est Ba lay jàppale comme c'est le candidat de Macky Sall candidat de Benno même bu se bu bu bu bu mu du woon bu du woon tey Amadou mooy candidat Sénégal yi ci seen bopp xam nañu ku ñu war a jël teg ko ci seen kanam réew fal ko mu nekk président la dafa am ay critères yu xaar ci moom. brillant inspecteur des impôts et domaines. je dis pas qu'il n'est pas brillant. ña ko ña ko ña ko jiite sax nee nañu. amul caaxaan ci liggéey. il est rigoureux a de l'éthique intellectuel bi fukki sénégalais yoo jël intellectuel ah? bi xaaral ma minimum juróomi nee nañ dinañ ko voté nga naan chef de cabinet. oui ma <laughs> le pays quand bu ñu yàpp nag. may mun a moytul Basirou defa chef de cabinet. non mais mais man man man man quand même euh, il faut qu'on se la vérité. waaw Bassirou Diomaye Faye président de la du Sénégal. waaw il faut réfléchir du yàlla du ma bi. du question ñàkk koo yéene. mais damay yéene Sénégal un chef d'état bi nuroo ak. askanu Sénégal ak Sénégal. lan mooy chef d'état bu ah oui quand même qui répond à tous les critères. ban critère Ousmane Sonko tey mënuma taxaw wax ne il n'est pas présidentiable. jamais au plus grand jamais su ma ko sa ça veut dire que je suis en train de de raconter des histoires malgré ànduma ci moom ci wàllu politique il n'est pas mon candidat. Karim Wade Karim Meïssa Wade il est ah. présidentiable ah Karim moom daa pare. il est présidentiable. Karim moom daa pare mu su ma yëkkati kàddu ne Karim Wade n'est pas présidentiable je ne le ferai pas malgré il n'est pas mon candidat même suñu ubbee liste yi mu nekk candidat il n'est pas mon candidat mais le problème en nekk que Séné yéene naa Sénégal koo xam ne ne buy taxaw di défendre les intérêts de ce pays dem ci tubaab yi comme que nous sommes un pays on attend du pétrole et du gaz. qui va bien se développer fi ko Macky Sall bàyyi. terre bi ah BRT bi yëpp dañ ko war a yokk ak yeneen je veux un président jantal